asalaamaaleykum mbokk référence TV ñoo ngi leen nuyu tey nag ñu ñëwoon ci seen micro territoire pour ñëwoon bëggoon a laajte rek ku ci nekk naka ngay dundee ak Saint-Valentin bi léegi nag ñu dugg xool. aleykum salaam ma fii. ça va baa ngi ci jàmm. alhamdulilah sant yàlla bu baax waay. maaleykum salaam soxna si. ça va ci loo nekk. ça va très bien alhamdulilah. yaa ngi si jàmm bu baax. jàmm bu baax a baax. waaleykum salaam wa rahmatulah. ça va ci loo nekk. ça va kay. maa ngi si jàmm bu baax ngi si jàmm kay. waaleykum salaam si. ça va ci loo nekk. alhamdulilah sant yàlla bu baax. mbaa yaa ngi si jàmm bu baax. maa ngi sant yàlla salaam. ça ci loo nekk. yaa rek alhamdulilah. mbaa yaa ngi si jàmm bu baax. ñu sant rek alhamdulilah. ngay dundee saint bi en tant que jigéen. ok merci euh, ma kii euh, ma kontaan naa ci taxawaay bi ak question laaj question bu neex la waaw ndax xam moom daanaka fête des amoureux la couple la yëpp célibataire ci biir ndax man célibataire bu mag laa waaw da pare na pare bu am doole bu am jom comme ni ko defee rek ndax ci la bokk. na ànd vie bi moo laaj loolu waaw bu ñu tollee ci fête des daal dañ koo defar ba mu baax ba mu très bien waaw mu fekk fi ma fekk nag ma jaay nag waaye yàqalti naa nag dëgg yàlla moom macha allah teel a wàcc dem préparé ko waaw. waaw man li ma jàpp ne moom chaque jour mbëgg la war a nekk comme ni nga ko waxee rek chaque jour mbëggeel la di lundi au yëpp mbëgg la war a nekk mais nag Saint-Valentin gars yi si taamu jour boo xam ne nag xëy na fête mondiale la moo tax ñu taamu si mais man dama jàpp ne jour nit jigéen mën na laa jàpp mais xëy dañ ci jàpp tey ci taamu février bi mu nekk fête mondiale boo xam ne monde bi yëpp koy féete mais dans dans normalement chaque jour dafa war a nekk Saint-Valentin mooy feetu mbëggeel bisu mbëggeel mooy chaque jour sa jabar da nga ko la firndeel mbëggeel même bu feet amul sax mais xëy na Saint-Valentin da ci gën a fës rek mais normalement chaque jour mbëggeel la war a nekk. ii man daal chaque Saint-Valentin bàyyi chaque Saint-Valentin saa yi bu waaj a ma bàyyi mosuma dund yi Valentin bi waaj a si nga bàyyante te Valentin la ñëpp di xaar pour bëggante. chaque Saint Valentin ma bàyyante man loolu dafa ma jaaxal mosuma dund Saint Valentin. moo tax loolu. xaw ma sa couleur am. lan moo tax loolu laa bëggoon xam. ah damay bàyyante dañ may bàyyi. dañ lay bàyyi maanaam ci li ngay jàpp moo du wóor wala yow yaa bëggul jàpp wala lan la. xam nga xam nga jigéen ñoom mooy loolu xaalis lañ gën te man yoruma dara. Ah. waaw mais du ñëpp nag del ut différence. ah am na différence waa am na ñoo xamante ne waaw dañoo baax bële paase Saint-Valentin bi paase comprendre nga amoon naa benn boo tamit daa ñëw ba Saint-Valentin bi ñu bàyyante. mu bàyyi la parce que dafa am li mu lay laaj te joxoo ko ko wala. foofu la nag lu mu laaj moo bëri. waaw ni ñu koy dundee xam nga rek dem déglu soxna si waaw moom moom lu ñu lu mu wax rek ñu ànd ci ak moom quoi soxna si moom xam nga rek mooy loolu ñun ci ay waawam la ñuy wax la ñuy dox pour les cent quoi comme ni ko gars yëpp di ko defee. waaw nous disons la Saint-Valentin mais aussi la Saint-Valentin at ba at at ba at ñun ñoo ko ci feete mais la Saint-Valentin est toujours et éternelle waaw jour mbëggeel moom mbëggeel du mës a dàq mu mbëggeel aussi ce qui est mooy déjà la dignité la personnalité mais itam euh, l'espérance parce que ki nga bëgg am na fu ngeen bëgg a jëm am na objectif yi nga xamante ne moom ngeen viser war ko def am ngeen de point A à point B point A bi nag mooy déjà départ bi point B mooy arrivé bi tant que arrivé wu leen nag il peut y avoir yoo xamante ne mun na leen soit ngeen am tooñantee ngi ci biir jub euh, xuloo ngi ci biir juboo ngi ci biir mais li ci gën nag mooy juboo ku nekk daal cadeau bi ngay mën a jox sa jabar daal moom ngeen jugo juboo éternellement parce que aussi vie bi c'est tellement simple ba tax na rek loo ci mën a def ak nit ki rek na nekk ngor ak diine. waa waaw ba tey tamit damay dégg ñu ne Saint-Valentin da nga war a utal sa jabar cadeau cadeau bi mu gën a bëgg yow nan ngay ndee loolu. bon chaque année moom dina ma laaj cadeau comme ni ma ko waxee rek xëy na moom li ma ko magee dafa bari bon day yor ba léegi jiko jiko xale bi du ma a xale sax mais bon day nekk tendance day nekk tendance donc daaw bague or or laa ko offriroon ren téléphone la ma ñaan bon donc amul problème comme que fin semaine la jot na ko bëggoon offrir année bi incha allah ci kattan waaw xanaa defal ko ab surprise rek defal ko surprise rek mu nekk ni cadeau moom nañu bàyyi ba ngoon rek incha allah rek defal ko surprise bu bu bi lay nekk bu ma ko waxee mën na maa capté léegi damay bàyyi ba wàcce rek defal ko bi la mère la mère le le comment encore. meilleur kado bi ñuy mën a joxe mooy déjà beaucoup d'amour beaucoup d'amour et beaucoup d'humour parce qu'il y a deux choses ak humour beaucoup mais itam beaucoup d'espérance maanaam nit ki jox ko plus de confiance maanaam suma ma sañoon si vous fêtez la Saint-Valentin maanaam yéen da ngeen di def ku nekk nga indi li nga xam ne moom nga nga gën a bëgg nga ne ko destine bi ñu jëm maanaam seen feuille de route nga signé ne maa yow nous sommes pour l'éternité pour le meilleur et pour le pire kado la kado nag dafay am dafay am dafay am kado boo xamante ne dafay nekk comme comme objet maanaam tey mun naa di ma ne ko offrir naa ko sama jabar pour seen valentin bi objet la mais nag il faut lui donner la cœur joxe xol ba ilaa abadan loolu laa gis ngor ak diine nag mais lii cadeau mun nga ko jox sa jabar bégal ko mais mbégte bi mun na yem ci po bi nga ko jox nii mais nag na dugg ci xol bi na amour ñëw mm-hmm. muy mbugeel bàyyi ndeyam ak bàyyi ñëw sa kër kooku da salatu la dara kon donc na nga ko war a mbëggal chaque jour chaque jour nga koy bégal man loolu laa loolu laa bëgg sa du xaar ba tey nga kii tey xëy na dafa nekk loo xam ne bu mondial la mais chaque jour Saint-Valentin si jigéen parce que jigéen kenn mënul ko offrir tam milliard amoo fayam jigéen moom comme kenn amul jigam xool le def nii mais kenn fayam parce que jigéen mooy lépp. ñoo ngi rafetlu ka yi kon papa merci beaucoup. jërëjëf yaa booy jërëjëf. yow yow yow lu leen laaj dafa bëri trop. loolu nag mënu ma ko ay ay. mais lu tamit jigéen laaj la ah te ñu ne jour mbég bëggee la jour mbégte la aussi lépp lu la laaj da nga ko ci war a jox la moo war a loolu. waaw am nga mbëggeel du jaay mbëggeel du jaay ku la bëgg du la sonal comprendre Saint Valentin ko def si si lu simple te doo laaj ay cheveux naturels ay lu ne. xam nga loolu antenne ñu ko ñun dañuy forontu rek moo loolu. ah te woon na ne attanoo moo tax kay cinquante dégg nga cinquante bu ñëw ma bàyyante. parce que li may laaj attanu ko man. maanaam yow daal ci gàttal daal sax événement rek da ngay bàyyante. damay bàyyante ii ah. attanu ma ko. waaw ah, kon merci. mu bàyyante su ma bàyyantewul lu baax. merci dégg nga. yal na yàlla dimbale leen ba seen objectif. amiin amiin te ci yoon yàlla dimbale leen ci jàmm ak salaam yàlla na nga am barke daal. amiin waay amiin voilà. merci ñu ngi rafetlu kàddu yu baax aussi merci beaucoup à toi aussi. ok ah, kon baax na ñoo ngi xaar surprise bi. merci beaucoup kon nag mbokki internet li leen leen indiloon ci seen micro trottoir Saint-Valentin bi yéen a ko gisandoo. j'espère que kontaan ngeen ci bu baax a baax a baax baax a baax ñu leen jox nag dig daje ba beneen yoon incha allah.